salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi man daal président Macky Sall léegi man mënuma kaa comprendre yow yaa ma jàppaloo Amadou Ba yaa tax ma xam Amadou Ba yaa ne ma dimbalil Amadou Ba nga jàppale Amadou Ba ba ma am émotion ci Amadou Ba tey nga jël ay saagakat ñiy saaga Amadou Ba fol leen daa di folli ñi nga xam ne ñoom ñooy jàppale Amadou Ba lu muy nuroon Lat Diop Cheikh Omar Anne Fatou Thiané ah Doudou Ka ñoo ñooy jàppale Amadou Ba ñu wàccee leen léegi ñiy saaga Amadou Ba di ko xas ñooñu la yégal président mënu ma laa comprendre de président mënu ma laa comprendre président mënu ma laa comprendre barki alxuraanul karimi mënu ma laa comprendre président lii lan la nii léegi nag dama leen di jox benn information bu leer ngeen déglu ma ngeen déglu ma bu baax a baax a baax a baax xam nga élection yi dañ koo gaawantu def ko le 24 mars déglu leen ma de article 2 li mu wax article deux mooy élection yi campagne vingt et jours la war a doon article deux mais lii nii boo calculer diggante euh, euh, le vingt quatre mars ba le neuf le neuf la kii bi war a commencé campagne yi ah mu war a nekk douze jours douze jours yooyu nag déglu leen mu bu baax Macky jàpp na élection yi ngeen kontaan mais ba tey am na lu ciy xaw parce que le fii ak len ak ak ak le 24 ba bi campagne yi commencé 12 jours la bu fekkente ne PDS dafa d'accordul wala beneen parti ne ne 9 jours duñ ko campagne wala 12 jours ndax article bi 21 jours la wax bu boobaa dañuy dem assemblée ñu voté ko su ko defee loolu mën naa dissoudre euh, li nga xam ne moom mooy élection yi yaa ngi dégg ñu ajaat affaire yi. yaa ngi dégg parce que ku ci attaqué conseil constitutionnel dur ko baaraam rek daan ne d'accordul ci 12 jours yi parce que campagne bi dafa tuuti du ñu arrangé 21 jours la article bi wax. foofu problème mën naa am te waa PDS dégg naa ñi ngi ñi ngi ñi ngi waaj a attaqué conseil constitutionnel nan kontaanun ci wala d'accordun ci li nga xam ne moom mooy article bi parce que campagne vingt 21 jours la war a nekk au lieu de 12 jours déglu leen bu baax loolay information bi bu boobaa loolu tamit du baax ci Amadou Ba du baax ci Amadou Ba te ñun Amadou Ba moom man moom laay jàppale ndax président moom moo ko jàppaloo te man mënumaa jàpp nit di dem président man xaw ma jàpp di bàyyi aadamu day ñiing mu xaw ma di jàpp Amadou Ba di dem di ko bàyyi bu ma ko bàyyee campagne yi commencé na Amadou Ba dafa war a non damay jàppale Amadou Ba maa ngi ci Amadou Ba de maa ngi ci Amadou Ba waaw